asalaamualeykum sama mbokk jàngalekat yi man la Dame secretaire général nationale bu CUSEMS authentique tey dimanche 29 mai 2022 dama ñëwaat pour wax ak jàngalekat yi ci li nga xam ni mooy situation grève bi ñuy dund ci jaay doole bi ñu gouvernement bi bëgg a def te mu metti jàngalekat yépp naqari képp koo xam ni yaa ngi yëngatu ci école Sénégal bi depuis démb maa ngi gis ci réseaux sociaux yi benn message buy circuler buy wax ne président de la république dafa mer ci le gouvernement am respecté wul li mu déggoo woon ak jàngalekat yi toftal ca sax ne gouvernement bi joxe na ay instructions pour ñu corriger loolu il faut ñu leeral ni loolu du l'en dul ay manipulation benn Euh, Sénégal amul benn ministre bu fi ñemee jël benn décision boo xam ne diggoowu ceeg président Macky Sall ni réew mi di doxee lépp lu fi am président Macky Sall moo nekk ci ginnaaw kon di jéem a seetal président de la république di jéem a taqal ay ministre de l' économie et des finances wala di jéem a taqal le directeur de la solde man jàpp naa ni. loolu ñàkk a xam le xew la naam Abdoulaye Daouda jàll moom conférence de presse bi wane na ci ni ku yabaate la di traité nit ñi euh, de menteur euh, di sosal nit ñi loolu moom dëgg la ni lu ñu war a ñaawlu la ñun ñëpp yamale ko aussi place am parce que moom Abdoulaye Daouda Diallo du dara euh, ba war a taxaw naan sax day wax ay wax yoo xam ne day xaw a menacer walla jàngalekat yi. àndandoo ci ak euh, ministre de l'éducation nationale waaye daal li leer mooy président Macky Sall bim daggee voyage am bi nga xam ne si mi ngi ko fekkoon bitim réew ak léegi ñëw taafantaloo fukki liir ak benn yooyu génn àdduna ca Tiwaawoon leen mën a jàpp rek mooy bi mu ñëweek léegi coow loolu coow lu rëy la yu sénégalais yëpp di ko ne di naqarlu ndaxte wërta am ci réew mi waaye beneen coow bi mu fi fekk mooy coowal njàng mi ak li gouvernement am déggoo te doxalu ko ba mu indi grève fin d'année boo xam ne danger bi ci nekk mooy at mi mën naa yàqu kon ni ma koy waxee toujours at mi ñoom jàpp nañ ni mën nañ koo baaxal waaye jafe-jafe bi ñu nekkee buñ buñ ci wutul ay saafara mooy at mi yàqu na olof yi nag dañ ni ab nawet feek góoboo ba yóbbu sa kër yàqu weesu ca waaye année scolaire it tant que proclamé woo say résultat CFE ak BFM ak baccalauréat ak yeneen examen yi nga xam ñoo am ci enseignement technique formation professionnelle bi at ma yàqu weesagu ca kon nag ñun li ñuy wax mooy taxawaay bi nga xam ne moom la jàngalekat yi am depuis ñu seetlu ni gouvernement bi la mu diggee woon defu ko ñun ci loolu lañ leen di continuer di ñaax ndaxte lii ñuy dund jàngalekat yi ñoom ñoo wone ni am nañ naqar am nañ mbetteel am nañ yaakaar gu tas ci ni gouvernement bi doxale ci li nga xam moom la dégg woon ak ñoom ci mois de février deux mille vingt deux bi loolu nag du ay mbiru bi syndicat ak ben syndicat kat yep ño àndandoo def wenno say ni mbéjum kanam borom mo koy fajal bopam li ñu gouvernement bi bëgg tek dafa dépasser ay mbirum syndicat sendeka la bok ak syndicat bi la bok gulet man yag na ma fekke grew nak waye gulet ci bir njang ni ñu am grève bu melni bo xamni enseignant créé en mai yi mooy ñiy jàngale ci classe yi ñi ngi taxaw ni jàngaleetuñ ñi jiite école yi taxaw ne ñoom it dañuy bokk ci grève bi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk également di saytu liggéeyu jàngalekat yi tamit taxaw ne ñoomit dañuy bokk ci ci grève bi ku ci nekk joxe sa plan d'action kon loolu guléet mu am kon loolu leen ci war a rafetlu rek mooy su ñu de continuer def wenn dank li nu bëgg dinañ ko am mooy nguur gi. li nga xam ne moom la déggoo ak jàngalekat yi naam ay erreur am na ca ci li nga xam ni moom la ñu signé protocole d'accord bi parce que waxtaan aussi wax dëgg ca la bi ñuy signee protocole d'accord bi am na ab document de travail boo xam ni dañ ko partagé ci biir négociation yi loolu moom lu leer la ko xool document yi danga gis ni am na am na benn document bu tudd note synthétique sur les propositions d'amélioration du niveau de rémunération des enseignants boo xam le logo ou direction du budget ma nga ca fang mu leer naññ ne ñoom ñoo ko defar ba noppi présenté ko ci négociation yi kon loolu moom manes na koo nangu te document boobu am na ñaari tableau yu ca nekk benn tableau bi mooy tableau bi nga xam si moom moo moom lañ tudde ñoom tableau 1 tudde ko indemnité liée à la fonction dirigeante foofa la ñuy joxe ay ndàmpaay ñi nga xam ne ñoom ñoo yore école yi ñoom ñoo koy jiite ak kuréel yi nga xam ne moo am ci njàng mi ña koy jiite ñooñu lañ defal ay indemnité ci tableau boobu ñu tudde tableau mu am toujours ci document boobu lu ñuy tudde tableau deux boo xam ni mu ngi tudd synthèse des augmentations net en moyenne des salaires des enseignants boobu la enseignants yi di tuddee minima ak maximum kon ñaari tableau yooyu mi ngi leer nañ ci document de travail boobu nga xam ne ñoom gouvernement bi weddiwuñ ni ñoom partagé nañ ko ca waxtaan wa erreur bi ci am rek mooy bi ñuy signe protocole d'accord bi syndicat ya fa nekkoon man jàpp naa ne bi ñu dugalee tableau 1 bi ci biir protocole d'accord bi ñu signé waale ko ñu parafe ko ña fa nekkoon parafe ko ñu wax sax ci biir euh, accord bi ni ci euh, point 2 bi nga xam ñu ko tuddee sur la revalorisation du régime indemnitaire des fonctions dirigeantes et administratives nañ fa waxe ci point boobu ni les montants retenus sont répertoriés dans le tableau joint en annexe qui fait partie intégrante du présent accord maanaam lan fa tënk ci euh, xaalis boo am war nañ koo jox ñooñ di jiite euh, ni école di doxe ak kuréelu école bi loolu dafa bokk ci li nu li nu déggoo noonu lañ ko bindee kon jàpp naa ne noonu ñu ko waxee ci tableau boobu nga xam moo concerné ñin mën a tuddee les chefs d'établissement kon waroon nañ ko waroon nañ caa dolli également ni tableau numéro 2 bi ba noppi toftal ko ci accord bi tamit nga xam nañ dugale tableau 1 bi noonu la ñuy dugale tableau 2 bi nga xam si moom moo am les minima et les maxima man jàpp naa ne loolu njuumte la mais njuumte loolu nag du tee gouvernement bi mënta weddi ni tableau boobu présenté na ko naam signé signé waale ko ci accord bi mais présenté nañ ko ab document la boo xam ne si ñoom ñoo wax ni rubrique yi nii laal suñ ko laalee dina indi maximum yooyu ak minimum yooyu loolu mooy dëgg kon gouvernement du rusé man nag li ma jàpp mooy tappale yi dafa bëri ci ni nga xam ne moom la gouvernement bi doxale ci bi muy fay mooy benn am na ñun tuddee ay chargé de cours chargé de cours yoyu ñom gouvernement bi dafa dem dindi sen IRD un indemnité de recherche documentaire bi nga signé en 2007 ci protocole d'accord 2007 bi la euh, c'était le cadre, cadre c'était pas le e syndicat qui l'avait signé donc nous lañu euh, signé ni les instituteurs chargés de cours dañ leen di jox indemnité boobu nga xam ni moom le PCMG am donc nga xam ne mi ngi nekkoon IRD francs léegi nag bi ñëwee ci bi comme xam ni IRD bi dañ ko doubler ba ci francs mooy donc ñi amoon 60 mille léegi dañuy am cent au lieu comme ni PCMG yi nga xam ñoom corps assimilé niveau ñu corps assimilé nga xam ñoom lañ yamale ak PCMG yi léegi au lieu ñu yokkal leen comme nañ leen war a yokkale ñu dem dindi seen IRD pour ñenn ñi ñi ci des ñu bàyyi ko fa waaye yokkaluñ leen dara euh, ba noppi nag dañu ëpp ci ñoom ñu dox leen prime scolaire bi dem delloowaat leen ci prime scolaire bi alors que loolu tegul fenn loolu lu ñuy relever la loo xam ne gouvernement bu bëggee jàmm na ko dindi nu mu gën a gaawee parce que loolu euh, kenn du ko fi nangoo kon instructeur chargé de cours yi dañoo am droit ci IRD bi revalorisation bi ci am également dañ ci am droit te loolu accord la depuis 2007 kon nag bu beneen accord amee te dindiwu ko kon lépp lañ am ci avantage ci point boobu nañ leen ko jox bu dee bëgg nañ jàmm beneen bi nag li ma bëgg a wax mooy bu ñu xoolee bulletin yu bari gis nañ ni bëri na ligne yu changé ay rubrique yu bari ligne bi dañ ko changé def lu leen neex mooy kon ay tappale la ñuy def pour xool nu ñuy wàññeek nu ñuy dugale moom laay tuddee seen gymnastique financière yooyu ñuy def ak seen ndëgg sërëx yi nuy teg ak di tappale pour mën a wàññi bii weer bu beneen weeree ñu yokkulee dugalaat et cetera loolu kenn du ko fi nangoo tey kenn du ko fi nangoo ëllëg li may wax nag mooy ñun jàngalekat yi nañu xam ni xeex bi buñ ci bëggee am ndam nañu moytu féewaloo féewaloo mooy.

na ñëpp toog seen kër ñu déglu gouvernement bi li mu déggoo ak nit ñi mu respecté ko bu dee dafa bëgg jàmm bu bëggul jàmm lum ci bañul buñ ko ci bañ bu fekkente ne gouvernement président Macky Sall dafa opté pour ñu dem année blanche mooy examen yi du am nañ leen ci dem parce que ñoom lii nga xam ne moom moo indi coow li ñoom ñoo ko fi indi parce que ñoom ñoo diggee ba noppi lañ diggee ñu indi ci ay tappale gouvernement bu baax nag du rusé ay lee signé waale signé woon naa ko bii signé ma ko ay maa ngi respecté samay engagement alors que xam nga da ngaa tegoon dëgg sërëx man jàpp naa ne gouvernement bu responsable du def loolu te loolu coow rek lay jur kon nag liy dëgg mooy ñun ñëpp nañ ànd euh, yore benn mot dor wax jàngalekat yi toog leen seen kër wax chef d'établissement yi toog leen seen kër yéen directeur d'école yi ak principaux yi ak proviseurs yi toog leen seen kër jàngalekat yi nga xam yéen a ci classe yi toog leen seen kër di déglu gouvernement bi mu respecté li nga xam ne moom la woon ak ñun kenn duñu digg na dig moom kenn du ko fi nangoo ay daañ euh, nañ waxtaan moo tax rencontre boobu nga xam ne moom lañ wootee euh, suba ci altina ji syndicat bu gëm sa bopp bul fa teg sa tànk romb nañ ay waxtaan léegi jëf lañ lañ tollool jëf mooy fay nañ ñu salaire yu méngoowul ak liñ diggee woon ak ñun léegi li ñuy demande mooy nañ def émission spéciale rapidement bu ñu defee émission spéciale ñu jël tablo minima ak maxima bi ku ci nekk li nga xam ne moo manqué ci li nga xam moom lañ la fay ñu defal la ko émission spéciale maintenant nag fii yëg bu ñu defee loolu ba pare balaa weer wee ñu jëm nag parce que loolu bu ñu ko defee rek jàmm mënagun naa am maanaam ñu def émission spéciale ba noppi gouvernement bi reconnaître que moom moo juum wala moom moo defi tappale ba fay jàngalekat yi lu méngowul ak lim dige woon ak ñoom

Salèro mwa dè mè bi nèk euh, ni, wak degè alè, kom defnen ti erèr, mwen mwen banye nan dalat ti salèro mwa dè jwen bi. Donk mwa dè jwen bi, mwen kwa e fay, mwen fèkè ba, montan yin gwa khamne, mwen mwen digè ti minimay ak maksimay, mwen ap lin bo bes, mwen khamne telen kwen bin de lep mat ben yon, mwen nè nan toujou lò la gèmne mwen mwen solusyon definitiv bi, regle nan ay euh, euh, porcentaj tel. ay yokk ay point indiciaire tel yokk tel parce que encore une fois les quatre rubriques yi nga gouvernement ci salaire yi mooy IRD bi doubler ko ci 10 francs yokk point indiciaire bi def ko ko cinquante euh, défiscaliser l'indemnité de logement ba noppi indemnité d'enseignement bi mu 50% dem 60 du point indiciaire ñeenti rubrique yi tableau minimum ak maxima bi ne kon li ñaar soit yooyu mu ne yokk na ci cadre rubrique mu dem ko pour atteindre le tableau des minima et des maxima pour le mois de juin bu dee mënul loolu mu créer ligne ne permettre respecter le tableau des minima et des maxima parce que su deful fin juin également coow li ñu am nii ci mois de mai dana ñëwaat te loolu kenn bugg ko fi kon nag li nga xam ni moo am mooy dama ciy profito di félicité jàngalekat yi nga xam ni ñoom déjà ñu ngi leen tuddee ay professeur d'éducation artistique euh, ak ay professeur musique yi nga xam ni euh, ñoom dañoo commencé woon seen correction wu bag bi bi coow li jóge ñu taxaw ne ñoom it dañuy bokk ci xeex bi pour décider suspendre seen euh, seen mot d'ordre pour bokk ci xeex bi ñoom maa ngi leen di féliciter parce que ay jàngalekat yu bëri yu bokk ci professeur d'éducation artistique yi jël nañ décision ne ñoom euh, correction bañ commencé woon office du bac daañ ko dakkal euh, bu ko defee wane ne ñoom ci xeex bi lañ bokk beneen bi mooy les professeurs d'éducation physique ñu bëri ci ñoom delloo nañ seeni clé wane ne ñoom euh, du ñu dem ci jury yi parce que jàpp nañ ni ñu ngi ci xeex bi te ñoom euh, kenn du dem ñu des parce que ñoom kenn mosu leen a xam ci ñàkk fayda ñoom les professeurs d'éducation physique bu kenn yox yoxi ci ñoom naam am na ay rumeur ne am na ci ñoom ñoo xam ni euh, dañoo bëgg a dem bokk ci examen bi loolu bu ñu ko defee dina nekk gàcce pour ñoom te maa ngi leen di fàttali li fi xewoon 2007 2007 am na jàngalekat yoo xam ne dañoo nekkoon ay défaillant waaye ba grève ba jeexee ba ñu boycotté bag ba ba ba bay corriger ba ba ba ba ba ba ba mu jàllee ñu dem signé benn protocole d'accord ñoom ba ñuy jëli seen indemnité ànd kook ña nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ca xeex ba te mësuñu ñoo dellu ginnaaw boycotté woon bac ba amoon nañ gàcce gu rëy man am naa ci koo xam ne tey mi ngi retraite yàgg na ma wax booba maa ngi lycée Limamou laay ni ma gàcce gi ma am ci bi ma défailliré en 2006 ci bagu 2006 bi ba léegi nii euh, daf ma metti kon na maa ngi leen wax ni euh, lu fi nit def ëllëg daan la ko xase wala euh, ñu fàttali ko sa njaboot wala ñu sat fàttali ko say doom wala ñu fàttali ko say sët kon na ku nekk am taxawaay ñu xam ne lii nuy xeex dañ koy xeex pour suñu dignité du problème mu xaalis problème mu dignité la parce que gor ca wax ja gouvernement bi mënu fi nek di yokal kuko neex barki dembo ndjay gis ngeen lim def ci police nationale bi yaatal ko ba ci gendarmerie bi yaatal ko ba ci euh, euh, donc euh, les agents pénitentiaires ñu yokal ñëpp ay som yu reuy yo xamne ñu ci bari ci ñom diplôme yan leen euh wax deug yalla ñun kat yi rom nañ diplôme yoy bu yag yag yag kon nanyu kon nañu am taxaway xamni Euh, torox toroxal gi ñu nguuru président mag Sall bëgg a toroxal bu ñu ko nangoo mooy dootuñu jarati dara ci kanamu sénégal yi dootuñu jarati dara ci kanamu suñuy élèves dootuñu jarati dara ci kanamu askanu Sénégal de manière générale surtout ak gouvernement bi kon nag lii dëgg mooy ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi ci xeex bi euh, nañu àndandoo euh, pour ndam mën a am parce que man li ma gëm mooy su fekkente ne. Euh, euh, ñun ñëpp taxaw nañ fi ñu war a taxaw ñëpp toog seen kër di déglu gouvernement bi pour mu andi ay saafara ci lii nga xam ni moom moo ko fi indi lam dégg woon ak jàngalekat yi mu bañ ko def ba mu andi coow moom gouvernement bi rek moo ci am ay solution solution yi nag xam na ko na ko def jërul toog di waxtaan ak di def ay monitoring yooyu yëpp yëfu tappale la kon nag euh, lii laa amoon pour wax ko jàngalekat yi di leen wax ni Euh, man awma benn sikki sàkk que bu ñu taxawee fi ñu war a taxaw joxante loxo bañ a indi benn féewaloo incha allah ndam la ñuy am parce que dañ ñoo tooñ te askanu Sénégal yépp xam nañ dañ ñoo tooñ ñi nga xam ne ñoo fekke woon waxtaan wa ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, les organisations de la société civile def nañ déclaration wax ne jàngalekat yi ñoo nekk ci dëgg gouvernement bi li mu wax amul kon daaw Daouda jàlloo li mu wax dëppoowul ak li am moom ak euh, ministre yam toogaloon ca conférence de presse ba kon loolu lu am am solo la man mii nee naa parents d'élèves yi également nañu jël seen responsabilité ñoom it ñu àtte parce que bu ñu toogee ni miix mii xeeral ci seen ruq day mel ni kon ñoom daa am lu ñuy ragal bu fekkente ni ñoom danoo fekkee waxtaan wa te ñoom gis nañ ni coow am na war na ñoo mën a taxaw àtte wax fi dëgg gi féete kon parents d'élèves yi bu ñu seetaan Euh, association des euh, de parents d'élèves ya fekke woon waxtaan wa nañu àtte comme ni seen yeneen moroom yi àtte bu ko defee sénégalais yëpp xam ne gouvernement moo nekkul ci dëkk lii daal mooy li nga xam mo taxone ma ma wat sama kàddu leen wax ni bu kenn yox yox yi inshallah ndam lañuy am kon encore une fois chers camarades restez chez vous maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wa salaam